Issa euh, en tout cas débat bi ni mu euh, tajoo rek euh, ak le rappel historique bu am solo bi Ndem def foog naa jox nañu aperçu ci li nga xamante ne actuellement Ousmane Sonko mu ngi koy dund su le lien de la détention depuis que mu dugg en politique en 2014 ba fii ñu koy câblé sur une histoire sordide de viol Ousmane Sonko rappelé na que la politique c'est l'art de gérer la cité malheureusement li mu am en face ñu tontu ko mooy la politique c'est l'art de manipuler le code pénal ou le code de procédure pénale je m'explique xam nga euh, Lamine Bara foog naa bi ñuy euh, commencé le processus beauté bokkoon nañ benn jotaay ma ne gisuma ci euh, Sénégal juge buy condamné Ousmane Sonko ci viol ak menace de mort mënul nekk te ba tey jii nii nekkut donc ñàkk nekk googu noonu firnde la ci ne la doon wax depuis le début di ko euh, takkal Ousmane Sonko te yemul ci Ousmane Sonko ak i njabootam te loolu moom moo tax ay soxnaam génn loolu moom moo tax nga gis kër yaayam ci wàllu parrainage ba à Ziguinchor ñu attaqué ko pour nangu ay fiche de parrainage parce que Ousmane Sonko c'est le premier leader politique bi nga xamante ne dañ koy attaqué jusqu'au plus profond de son intimité euh, Idrissa Seck bu ñu xamee Ndeye Penda c'est par son romantisme mais kenn gisul Ndeye Penda taxaw ci plateau di wax aussi rude que soient ses divergences avec le président Wade euh, d'alors kenn mosul dugg ci vie privée am kenn musul dugg ci intimité am noonu président wadd noonu ba muy nekk euh, opposant euh, Mamadou Dia Cheikh Anta ainsi de suite donc Ousmane Sonko moom mooy premier leader politique bu subir cet acharnement là te loolu li ko waral mooy il est allé en profondeur ci biir opposition maanaam ne système bi moom mooy problème bi pas nit ñi mais système bi et que là beaucoup on se santi sentis boo leen déggee ñuy wax ñu ngi bëgg a attribuer la paternité de certaines euh, radicalités ci biir euh, espace politique ñu ngi koy attribuer Ousmane Sonko te pourtant amoon na fi le gatsa gatsa Ousmane Sonko dafa war a jox droit d'auteur Khalifa Sall moo ko fi wax. te pourtant ñëpp nangu nañ ko kenn amu ci benn problème dund lii muy dund mu ne usman Sonko dafa ne waa ji dina ma rey wala ma rey ko looloo tax lii muy dund mu dund ko waaw bu dee ki danga da nga mën a ma rey wala ma rey ko danga war a dund lii kon Ahmed Suzanne Camara lu mu war a dund ndax dafa ne moom nañu faat Ousmane Sonko yaa ngi koy dégg te mu soo ko dénoncé nañ wax ci loolu waa ji assemblée nationale la taxaw mu ne candidature bii bu jaree ñu dox ci cadavre l'honorable député Cheikh Seck ñëpp di ko dégg. ils n'ont jamais dénoncé ça le maire Omar Ba président de l'AMS nee na bu waa ji nekkul candidat le pays sera en feu et en sang kenn waxu ci Ousmane Sonko ba muy wax ku dee sa yaay juraat dañ ciy dagg li leen neex dafa ne xale yi nee nañu ku dee sa yaay juraat waaye sax dee du am pourquoi ñu tëb loolu yëpp loolu mooy l'art de manipulation da ngay wax li mu wax lépp wa ilaa nga noppi ndax même sur le cas de Samuel Doe ni ñu koy waxee demeewul noonu de ne. yenn dirigeants yi seeni comportement mérité nañ lii mais dañuy jékki-jékki rek dagg li leen ci arrangé bëgg dem ak moom déedéet du demee noonu. Mm-hmm. mais ci ci yi ci laay ñëw balaa balaa may parce que dafa am euh, lu ñu fi wax loo xamante ne tamit dëppoowul ak ni mu demee ñu ni kii bu gul ak le juge d'instruction kenn mënu koo bàyyi waaw Ousmane Sonko ku ko mettre sous mandat de dépôt kan moo mettre Ousmane Sonko sous mandat de dépôt. Mm-hmm. ce n'est pas le juge d'instruction ah waaw. <laughs> lan moo fi xew ba ñu ne waa ji bu gisatul juge d'instruction kenn mënu koo bàyyi loolu fu mu am. kon à l'étape de cette procédure mën nañu ko bàyyi. mais parce que gis na juge d'instruction juge d'instruction moo ko placé sous mandat de dépôt ni mu gisee juge d'instruction noonu la ko Juan Branco gisee. kon instant bi mën na dugal liberté demande mise en liberté provisoire ma ne. ni mu gisee juge d'instruction noonee la ko Juan Branco gisee te pourtant Juan ñibbi na. te demandé wul liberté provisoire. te demandé wul liberté provisoire te yoon dafa ne juge d'instruction. bu ñu viser article cinquante cinq ba cent yow amoo beneen pexe lu dul placer nit ki sous mandat de dépôt pourtant loolu ñuy toppee Juan article quatre vingt cinq la dafa nekk ci intervalle boobu pourtant bàyyi nañu Juan mu ñibbi te pourtant Juan mu ñibbi sous contrôle judiciaire mais passez-moi l'expression il s'en fout parce que nee leen moom Juan moom mooy wax de mu ne Quai d'Orsay dañoo teg pression bu énorme gars yi mënuñu ko woon téye Juan moom moo waxal boppam loolu. waa léegi nag bu dee nang mën nañ nangu. ñaan ñaanu kedorsee maanaam ndigalu kedorsee ay la yéwén ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha kenn mënu ko war te pourtant waxuma euh, kaaw Ousmane ko de Karim Wade Serigne si dañ doon ñaan Khalifa Sall Serigne si dañ doon ñaan et que pourtant à cet étape de la procédure bi ñu nekkee ci événement wu mars 2021 à cette de la procédure lañ libéré tous les détenus politiques te pourtant man waxuma ko de ndéem waxu ko Pape Sané waxu ko moom président de la république moom moo ko wax mu ne am na dossier yoo xamante ne bu naree yëngal dëkk bi moom moo koy téye kon kay am na possibilité téye dossier. oui nee na kuddu ba mhm. kon moom moo ko wax kon étape bi ñu nekk ci procédure Issa. dama bëgg ñu xam ni amul lenn luy opposé wu surtout que ki nga tey amul lenn loo xamante ne am na ko comme euh, manque de garantie de représentativité c'est un maire. c'est un euh, président de parti ainsi de suite kon kooku fan lay daw ki nga xamante ne mënatoo ko tegi gët moom nga mettre sous contrôle judiciaire étape de la procédure bi ñu inculpé woon Ousmane Sonko placé ko sous contrôle judiciaire lan moo ko wuteeg étape bi parce que bële na la mënoon na nekk waaye bi mënul nekk lan mooy différence bi juridiquement Macky Sall peut le sortir. foofu laay waxee dama ne. dama ne. Eh, nañ def nag président moo ko waxal boppam. moom moo ne am na dossier yoo xam ne moom moo ko wax Macky Sall mën naa génn Ousmane Sonko bu fekkee man waxuma ko. may ko président moom moo waxal boppam ne. am na dossier yoo xamante ne bu naree yëngal moom moo koy téye. alors bii nii nga xamante ne kii nii amul lenn loo ko mënti wax ci appel à l'insurrection loo fi gisul woon. président Wade nee na fi ñu tël ay barrières dem bu ñu leen dóoree jël leen ay chaîne vélo président Macky Sall nee na waa ji constitution ñu délogé ko ci palais. ainsi de suite ainsi de suite yéen ngi fàtte moi Idrissa et pourtant tey day joxe ay leçons de homme d'état da ngeen di fàttaliku CDM yooyu mbaa. <laughs> ak la mu doon wax jëmale ci président Wade mbaa. dinañ si ñëwaat sax ci deuxième. ah waaw léegi nag tey lan la fi Ousmane Sonko créé. Euh, Pape Moussa mais ñu dem ci beneen mbir boo xam ne dañ ko gis euh, ni ki euh, démb maître El Hadj Diouf maître.